ak di nee na ko ki ma rey soriwul ba mu ko laajee góor la la jigéen nee na ko jigéen la donc yàlla na yàlla leeral bisimilah looy doole si loolu. man degu li ma la wax gis nga ñun sénégalais yi choc bi ñu am dañuy xool bi nga xamante ni moo pire mu la wax kër ñoom Aziz Dabala am man damaa dem ba dama na man damay fàtte sama sama sama métit man jël ko tégal ko ci seen kaw mu nekkat ñaari ci tellement dama leen di yërëm da buy wax da ngay xam ni kii xamul sax fu mu taxaw barke alxuraanu karim ndax ni mu mel ak fereeram bi mer bi suy wax aussi pareil pareil ñoom ñaar ma ma remercier aussi sénégalais yi parce que tu euh, vous vous rappelez la fois dernière man ak yow ak mbaaye dañ doon naan kan moo joxe seen numéro kon sénégalais yàgg nañ ki def lu baax moment boobu deux jour lañ ciy teg xaw ma ci guddi ga ñu dafa plafonné Amina Poté aussi ñu koy nuyu au passage moom it il paraît que ubbi woon na moom it côté am ñoo ñoo ko ubbi fii moom mu ubbi fee ñëpp ubbi macha allah ñëpp jàppale tey nga ñëw defaat ko man lii lay xaar ci live lii lay xaar ci sénégalais yi parce que man nii laa ko doon defee te kali lii yàlla dala koy fay parce que da ngaa wax rek ñëpp yu dugal macha allah macha allah touche du lii dafa am solo barke alxuraan ñun lii lañu soxla ndimbal gi lañu soxla bu sénégalais bi soxlaa ñu jug jàppale ko te yàlla tax bu nit ki sonnee nekk ci ay jafe-jafe ñu jug jàppale ko te yàlla tax waaye dafa am loo xamante ni da ko wax te billaay wallaay boo ko ko laajul woon sax sénégalais yépp xam nañu loolu la mooy kan la la wax góor la wala jigéen la mun la ba mu ne la jigéen la xool damaa gën a tàlli dama gën a tàlli ndax man dama yàgg dama yàgg bañ dama yàgg bañ du ma tudd tur dama ko seexlu du ma tudd tur parce que duma tooñ doy na waar taq na suuf la ndëm na dañu dimbale ngir jëmmi Seydina Muhammad lillaay wa rasul lañ leen koy ñaan justice bi xam nañ lépp nañ nu tegal carte gi ci table bi ni carrément nii ak nii demee lii ak lii la diw moo rey diw moo santaane diw moo lii diw moo laa nabu lay ma tudd tey turam pour une bonne fois pour tout ma tudd ko nag te yàlla tax min ciy tudd booba léegi ni man avocat man laa gis koo xamante ni booy wër ku naa féq ku ñeme yàlla ba yegg si ci avocat téyal ndax yow nga gis ni déegi mel ni déegi mettee nga mën a taxaw nga ne yow dangaa pare pour plaider Nabou Leye ma xam ni yow yàlla may na la lu may doomu aadama TikTok dañoo soof quoi ñu may signaler fii man TikTok jaax merde finalement ah. yi est-ce bind moo aussi avertissement, ce comportement n'est pas conforme à nos politiques et peut entraîner la suspension de l'envoi de cadeaux. numéro il, numéro il, numéro peut-être. Euh, quoi vraiment Giso, ma bindal TikTok sauf non Guizot, Giso, avertissement ni nos quoi. Mhm. numéro yi la dañoo gaaw si ay bloqué ki kenn xamul TikTok moo soof gars yi ko euh, euh, tapataleen s'il vous plaît. ngi noonu daal doy na waar. doy na waar rek may kër yi verte rek. TikTok su boobu moo soof balaa gars di tëj bi. donc pour information ay nee na cinq cent mille nii nii amagum na si compte bi cinq cent mille téeméeri junni. macha allah alhamdulilah rabbil alamin si benn dix minutes dajale nañu téeméeri junni. yaa na leen duddoo càmm Aziz yàlla barke Seydina Mohamed waaw yàlla na leen duddoo càmm waaye suñu justice bi kàlli ku wax ci yaba bi day bi tuuru sa kaw nuñ génn ñoom xam nañ lépp nuñ génn ñu tegal ko ni seen taab ci taab bi nit ñi seen bopp yi mën a tranquille lii ñëpp la traumatisé cette personne de traumatisé tout un peuple noonu dafa loolu ma fi waxoon nañ ko bàyyi xel fii ba ba yëf yi di jeex tàkk dina amaat yeneen tur yu tombe te man maa la ko wax barke alxuraanu karim dina am yeneen tur yoo xamante ne dañ leen ko tudd te ñoom ñëpp dañ lakk seen gat ba cëgu nar a kam li ñuy bon ñaareel ba soi-disant ay journaliste ngeen xawma ay taskatu xibaar bu ngeen dematee toog ak yaayu Aziz billaay war a sulli bàyyi leen ko naan ko ay dégg nañu dañuy sulli ba mel beeg di ko tiital yaay dafa foor ci doom xolu ndey dafa jege doom kii mënul ñàkk doomam ci anam yi mu ko ñàkkee mu metti lool sénégalais di ko ko jooyle mu di ko jooy ba léegi tey quarantième jour mu wóor la am nañu leen naqar am nañu leen metti te mënuñu koo faj ngeen dem tiim ko ay micro bari wax bu bëgg a dee naan ko ay Aziz bàmmeelam ba dégg naa dañ ko doon summi arrêté leen loolu dañ ko doon sulli arrêté leen loolu bëgg ngeen wax bëgg ngeen lu ngeen di wax kenn laaju leen ba leen maire bi ngeen topp di ko yaali yaali bu ñu dee cere gi sa falaal ngeen témbale ko micro ay nan ko ay Aziz dañ ko doon sulli rek ay Aziz liñ koy waxal ndax dëgg laa ñaay tudd ba arrêté leen loolu loolu yàlla moo mais kon saaytoon na saalit ba àdduna bépp xam ne mais bi saayit na arrêté leen loolu yéen soi-disant ay journaliste bu ngeen fa dematee toog wax leen lu am farata te bàyyi ay ay dañ koo sulli fi kenn sulli ku ko sulli ñu sulli sa waaye maa ngi jégalu. yàlla baax na jërëjëf Fatima ubbil sa micro Fatima Diagne xaw ma Fatima ubbil sa micro. gars yi ba léegi mën ngeen yónnee ah mën ngeen yónnee ay da daal wéefam bi téeméeri junni jot na ko mais doyul ku am dix mille cinq mille mille francs yónnee lekk wallaay ndeysaan. Allah Nesan. Fatima Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Halo. Nyong lay deg. waaw Kali nyong lay ya. ziar. doole ziar bu wér. Nyong lay ziar. Ya. ah Kali kontaan nañ torop si li nga def si bi def rafet na trop. ñoo ko bokk. benn côté tamit am nañ naqar. waaw naqar gi tamit ñu ko parce que Aziz moom ñëpp la demal wax dëgg yàlla vraiment. ñëpp ko nyak. ñëpp ko ñàkk ñëpp ko ñàkk mais ñu ngi ñaan nag yàlla na yàlla nit ki def jëf ju ñaaw ji yal na ko yàlla nit ci barke Seydina Mohamed parce que Aziz kenn du ko fàtte vraiment kenn du ko fàtte dafa nekkoon ndaw boo xamante ne nekkoon ci diggu ndëndam ci diggu ndëndam lañ ko jël faagaagal ko mais yàlla ñu ñëpp am naqar ñëpp ñëpp amee naqar lépp am na nga lu la naqari lool mais ki daal yalla nako yalla nit loolu rek lañuy ñaan yalla yal nako yalla nit mm. te li nga def tamit kontaan nañ ci torop geste bu noo bu nga def yal la yalla fay ma sha allah mm. kontaan nañ bu ba ok jere jërëjëf merci merci Biba Diop bismillah assalamu alaykum kali na nga def ah, ñu ngi sant borom bi waaw di la wax yow tamit mën nga wax alhamdullilah rabbil alamin parce que lu nit def ci mbir mi rek te yàlla tax am nga ci part de responsabilité mm-hmm. di wax ne dama yàgg di déglu souvent ñuy wax enquête ne foo gis fu rey am ka rey dana fa ñëwaat mm-hmm. te man bi ñu xëy bi ñu bi ñu sa ambulance yi taxawee di jël si Aziz Dabala ma gis ndaw si taxaw xoful jaaxlewul tiitul taxaw correctement comme kuy seetaan lu neex man ci la sama xel njëkk a ñaawe man ci laa njëkk amee doute ci laa njëkk a tiite bu may déggaat ci enquête ñuy wax ne crime boo gis rek kaka def dina ñëwaat léegi laay soog dugg nii FC création doo tëj sa micro s'il vous ok ah sama micro dafa tijjeeku waaw ok baal leen ma ñu ngi loolu yëpp waaw nga gis ne dañuy wax toujours crime fu mu amee rek ki ko def di dafa ñëwaat te moom ñëw na fa xoful raful tiitul jaaxlewul nekk mel ni kuy seetaan loo xam ne lu intéressant la man ci laa njëkk am doute ci moom mais nag dañuy wax ne bakkan dafa foor kenn du ko faagaagal ba pare nga ne yow di nga toog ni te doo feeñ loolu àlla kulli al il faut yàlla weer ko avocat ou pas elle est libre mu jël avocat mais yàlla moom il faut mu leeral ko te dina leer incha allah parce que jullitu yàlla buñ taxaw seedeel ko ne dafa jullite woon bëgg woy juram bëgg woy juróom moo tax yàlla may may way juram lii muy lii ñu koy kettal di ko kettal guddi di ko kettal bë bëccëg xol ni meloon ne Aziz meloon ci way juram moo tax yàlla may leen lii tey ndax amaana bu Aziz doon dund ba tey kër gi dina yéex am am bii dina yéex mais tey lii mu meloon ci woy juróom moo tax yàlla may ko lii tey te yal na ko yàlla xaare ajjana dëju Aziz Dabala ko mu naqari yal na la raw ci barke Mouhamed sallallahu sa wa sallam yàlla yàlla may yaayam xolu muñ ñu ñaar aussi journaliste yi ñu wàññi ah, li ñuy question yi ñuy questionné yaayam parce que mag la te elle a le droit de vivre toog mën a ñaanal doomam Kaliphone encore une fois merci beaucoup yow yal na la yàlla sàmm mooy def ci lu baax yal na la ko yàlla yéen ñëpp bëri xaalis mu ngi nii nii rek mooy yéen ñi Amérique ah bëgguma mais xam ngeen seen bopp waaw nii nii maa ngi ko naan bi xanaa dafa amoon xaalis mu ne amuloon dërëm mais capture bi may yónnee cinq cent douze mille téeméeri junni daal teg na donc yaakaar naa ne lii day wane générosité sénégalais yi lii day wane ne que vraiment sénégalais yi ñu ngi partager douleur ak ñi nga xamante ñooy famille Aziz Dabala bu ñu mënoon def tey ñaan ñu ne bu ñu ñaanee une heure de temps bii peeru ñaan Aziz Dabala day ñëwaat du ma trente secondes sénégalais yëpp dinañ def ñaan boobu parce que wallaay wala azim ñu ne rek ku am fukki dërëm yónneel ku am cinq cent yónneel ku am dix mille yónnee motul dix ñu am téeméeri junni vraiment encore une fois aw seen fay yéen laay wax aw ma seen fay cela montre que am na fu ngeen ma teg parce que mënoon naa leen ne Kaliphone xamul boppam du ñu yónnee dërëm mais à travers sama voix comme ni mu ko waxee Aïda ñaanul kenn yaayu Aïda ñaanul kenn mais ñun ñoo am sunu yëg-yëg si ñoom am sunu euh, euh, euh, métit ni asis demee nekk ndaw donc à travers li ñu leen yónnee moom mën nañ ci jënd ay saaku ceeb jënd si ay dawlin jënd si ay meew ba ñoom bu ñu comprendre sax ku leen doon defaral lu mel nii dem na bu ñu toggaatee sax fii beneen mois jékki-jékki ne ku am 1000 francs comme 2000 ñu jotaat non mais loolu beneen ko la quoi sincèrement parler te sama ay followers yaakaar naa loolu Papa Ndiaye si ñoom rawatina ñii ñu ngi France ñii ngi Amérique yéen ñi ma yónnee message yi ma ne envoyé na ko seen wave gis naa message yéen ñi ma envoyé WhatsApp yéen ñi ma kali envoyé naa ko yéen ñëpp te am na ñoo xamante ni seen wave peut-être doom xaalis mais suba peut-être ñu envoyé non Ken du Ken ken du sincèrement parler Ken du encore une fois donc beauté cosmétique euh, peut-être tu voulais aborder quelque chose sur le sujet qu'on parlait tout à l'heure avec euh, Naboulé comme tout le temps tu me parlais Naboulé Naboulé Aziz même Nyom ñi nga ne faut pas arrêter euh, ces affaires-là. qu'est-ce que tu voulais exprimer sur ça. bonsoir à tous déjà. bonsoir ben oui franchement c'est un sujet dont tu as parlé franchement c'est un combat qu'il ne faut pas laisser je pense que ça a touché tout le monde. Hein que ce soit les Sénégalais de la diaspora au Sénégal ou partout dans le monde, c'est ce qui s'est passé, c'est trop grave. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu la solidarité. Il ne faut pas laisser tomber cette famille. Franchement, ça fait trop pitié. Mais il faut que la justice soit faite. Il faut que chacun prenne conscience de ce qui s'est passé. Je pense que les rapports entre nous, ils vont, ils vont carrément changer les rapports d'amitié. Parce qu'on peut pas être 18 ans avec quelqu'un et la fin, elle se passe comme ça. Donc, euh, voilà, faut pas laisser la famille, faut continuer le combat. Et c'est tout. Donc, c'est ce message que, vous, euh, tu voulais ajouter. Donc, donc tu as entendu de début jusqu'à la fin ce qu'on a parlé aussi. La sœur Aziz, elle aussi, elle s'est exprimée. Je ne sais pas si tu as compris. Donc, je sais pas. compris. Maintenant, il faut épingler épingle, son numéro, que chacun garde, puisse screener au moins le numéro. Et je pense que tous les mois, il faut faire quelque chose pour ne euh, pas laisser tomber cette famille, en fait, puisque leur seul soutien est parti. Maintenant, ils vont faire comment hmm. Comme tu as dit, même si c'est un peu, que chacun a 100 francs, que chacun a 200 francs, un petit geste, un petit, un petit geste, ça va aider cette maman et cette famille à, à pouvoir continuer à, au moins à payer leurs factures, à juste faire les choses du quotidien tout. Juste ça, ce serait pas mal. Surtout. En tout cas, merci à toi. Merci à vous. D'accord, merci. D'accord. Les derniers, bismillah, ouvrez le micro. Mhm. Allô? Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nuyu naa la Kari nuyu naa ñu man yaa chose bo xam dafa ma jaaxal ba léegi lutax tax defuñu

xëcc fii ay journaliste tëj fii ay journaliste fii dàggasanteeg ak ay journaliste lii nga xam ne ñëpp ko jooy lii kenn wedd ne kenn jooyu ko lu leen teree def conférence de presse wax ci lii dafa xelu nit ñi ak xolu nit ñi parce que tout moo monde est inquiet ba léegi nit ñi man gis naa nit yoo xam ne ñoo ragal livraison sax suñu ñëwee ah pour ñu jot ba livreur yi sax seen liggéey dafa yàqu à de lii décès bi mais lu leen teree def ay conférence de presse wax ak nit ñi lu tax euh, euh, procureur waxul lu tax bàyyiwuñu avocat euh, avocat wax wax loo xam ne leer na ne dina sax dara xelu nit yi mais li gis est-ce que dee bi nit ñi xam nañ ampleur bu mu am bi ni mu ni ñu ni mu ñaawee gis nga lii bis buñ ci waxul defuñu ci conférence de presse waxuñu ci bàyyi dof yi nga xam ne ci ci internet bi nga wax li wax lu leen wóorul rek gis ñeneen dañuy yaakaar noonu la yombee donc ku rey dara dara du am wala wala kenn du yaat ils vont refaire la même chose te xottu gerte ñeneen bakkanu ñëpp ñu ngi ciy xottu gerte muy man ak foo ñuy def ci sanction bu sévère pour que ëllëg si biir kenn bañ a defati yëf yu ñaaw yu horrible yi nga xam ne nit sax du nit buy dund sax xaw man assassin sax xaw ma nu nga koy mën a ndax xool bu jeex. non tellement que man li def ma def ma daf parce que Aziz man de vue dama ko xamone Aziz xol Aziz togon kenn ñep Aziz neexna Aziz xol même ci jotay fu ñep togon même dara su waré am sax kenn wara mer sax Aziz na fexe bu def comédie wala def dara ba ñep reetaan xaqataay te loolu lépp ci jomam la ci jomam la de Aziz dafa fecce ba dag Aziz dafa fecce fecce fecce fecce ba dag Aziz tu le voyais en fait suy taxaw ci sen amour bi muy dégager pour rek dundu aaram dundu aaram di rek lu mu am suturloo ci boppam suturloo ci ay waajuram suturloo ci ay ay ay ay ñi nekk autour autour de lui mais xoole ils l'ont trahi Aziz tey dañ ko wor li war wor bu ñaaw la une autre chose ñii di dugal euh, Aïda Euh, yooyu yaa ngi yooyu da danga da nga da nga yem rek juste ci affaire de xaalisu pour jënd ceeb jënd diwlin mais jàppal ni gis nga xaalis bi ni yónnee bu kenn xeeb même benn cent franc sax wala benn mille franc bu ay di di di jël euh, taxi moom ak yaayam si delluwaat ci bàmmeel bi jënd mbuusu ndox si dafa defaat jàppal ne tuyaaba boobu képp ku ci def amu ci tuyaaba yow amu ci tuyaaba képp ko xalaat même yéene bi sax. ba nga am suba gannaaw suba nga am weer nga dugg sax yéene bi sax yàlla nangu na ko te nañuy ñaanal Aziz képp koo xam ne yaa ngi may dégg nii à travers ma voix su fekkee mën nga eh, wax ci sa biir xool wala nga jël sa loxo jàng benn Fatiha ak onze li xam man daal loolu laa amoon ci c'est excellent di man ko moom comprendre lu fi xew léegi jaajëf FC création bismillah merci Linguère jaajëf FC bismillah ubbi sa micro asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waa ñu ngi ziar ñëpp ku nekk ci turam ak santam. bisimilah waa di jël bi di la ko jox. waa di ñëwaat rek ci li nga xamante ni euh, bi muy xew tey ñu ñëpp ñoo ko yëgandoo. kon Kali macha allah di nuyu ayda mi fi jàll ak yaayam di leen jaalawaat Aziz mi nga xam ne dama naan ñun ñëpp ñoo ko bokk parce que Aziz dafa dem ba bokk ak ñun ndey ak baay ci bi muy bi mu bi ñuy xewee ñu ñëpp dañoo euh, ànd ci lii ci métit bi vraiment liggéey ci lu rafet waaye di leen wax rek ne Aziz yàlla na ko yàlla xaare ci àjjana yu kaw yi te may fameem xolu muñ li leen dal kenn mënu koo fàtte mënoo toog ay fanta doo xalaat deewu Aziz mu nekkoon fii lu metti ñu koy xeex di ci wax di def li nekk ba tey mu am quarantième jour xale yi nga yëkkati loolu fekk lii indiwaat ko ci panel bi kon dañuy def yow lu dul kali ma lay wax ne la yoon bii nga jël yal na la ci yàlla jàppale yàlla sàmm la ci yàlla taxaw la yàlla musal lafal la ci cat musal la ci seytaane parce que yaa ngi liggéey liggéey boo xam ni man de xooluma li paase ci yow man kali bi mooy kali boo xamante ne tabar fa kàll macha allah bu ñu amee. cent personne yu mel ni yow rek kon parce que dafa dafa tey euh, ñoom Aziz même seen famille tey bu ñu yooyu Aziz sax dafay am lu muy wàññi parce que wane nañ ni que Aziz ba léegi dafa am famille te famille mooy ñun ñi nga xamante ne ñun la daan seddal suñu xol yi ñu koy seetaan mu ñuy bégal kon tey boo taxawee yëkkatiwaat kañot bi dañ la ci ñaanal di la ci gërëm di la wax ne la toujours rek ni nga koy defee dafa rafet parce que ñoom ayda ak yaayam demandé wuñ ko da ko def te que jullit nga parce que da am xol parce que lii nga lii ngay liggéey nii da nga liggéey liggéey boo xamante ni vraiment social yombul boroom bu rafet rek moo ko mën a yéene moroomam vraiment par euh, de passage ma ciy nuy waaye tamit suñu benn sœur buñ naan Ndeye Cissé vraiment moom tamit mu liggéey ci lu rafet xam nga ñëpp def ci lu rafet vraiment Tally mention spéciale à toi ñoo ngi lay gërëm. ñoo bokk la yéen gisoon nañu fan yële. waaw dinañu fekk kañot waa Dubaay. ngeen jiitati mooy li ma la wax fii ma liggéey bi yàlla yàlla bu ñu defee kañot lépp fii la juddoo comme ni ko la baronde waxee di nuyu la de passage. lii eh, kañot boobu tey ñu jël ñun tamit dem def koog Adamo def koog euh, Bamba Cissé sama frère. def koog Ndeye Cissé bu France macha allah fii la juddoo ci yow. parce que man la woon ak yow ak Pambaay ñu wax ko nga taxaw def ci geste bu noobul def ne xaalis bi duma ko dugal sama numéro duma ko dugal ci numéro keneen ñu topp loolu nga wax te tabar fa kàlla bi ñuy wootee tamit ñëpp def nañ ki seen loxo kon dañuy sant Sénégalais di sant képp koo xamante ni de cent franc sax jël nga ko dugalal ko yaay dugaloo dugalaloo ko yaay Aziz sa bopp nga ko dugal sa moroomu jullit soxla muy catholique ba muy keneen nekk ci tolof tolof di euh, di di ñëwaat tamit di jaale waa Thiès. bu leen fàtte ni barki Dembo Ndiaye suñu doomu ndey bi nga xam ne day théâtre tur bi laa fàtte dëkk Thiès am na lu mel ni lu leen fa dal ñu rey fa ñoom tamit seen benn frère ñoo ngi leen di jaale ak partout dans le monde di wax nii yii metti na di waxaat tamit justice dafa waroon dimbali nit ñi ci kaawu Aziz parce que Aziz ñi ko rey liim nañ leen bari na daf ci am kenn koo xamante ni ku ne xam na ni boo tëddee bu guddi sax lu mu metti metti ni ko Aida di xalaatee yaayam di ko xalaatee da ngay taxaw naan ndax un jour du ñu la yee ci nelaw ne la xale bi sant lay bokk ci ku nekk da koy xalaat ci ñaari côté yëpp parce que ne meloon nañu ñoom ñaar ñoo xam ne doo seetaan seen vidéo te amoo ci njaw njott bu rafet kon et euh, justice moo ñu war a leeralal pour ku tëdd nelaw ñëpp xel yi daal ndax ëllëg daf ñuy dimbali ku ci nekk mën a maytu parce teg ko fee ci Euh, ci euh, prison ba rek ñuy dundee yaakaar di ñaaw njott kenn xamul ku ray ak ku rayul nit ñi naan diw la nit ñi naan diw la am na ñoo xam ne ba léegi taleen boo leen nee diw la ñoo ngi ci am ay dut ñuy ñaan ki def lii fekk ñaari doomu jaamul di jaale tamit di euh, wax ne waa kër ñoom waali bu ndaw yal na leen yàlla may xolu muñ ndax ñaari xale lañ boole yu nekk seen dugg ndaw faat leen ci loo xam ne ba léegi anam bi ku tëdd yaa ngi naan ban façon rey la lu waral lii lii sacrifice la wala lan la ba léegi leeru suñu bopp kon nag yàlla mi nga xamante ne dara ëmp ko mooy boroom gën gi mindeef ñun ñun ñun la dee gi ëmp waaye moom ëmp ko yàlla na ko leen yàlla weer leeral ko ci diggu àdduna yëpp mu leer ci bugg noppam te vraiment juste Sénégal dee bi waru lu ñuy waral li ñuy nekk Sénégal dafa dañoo jël nit man pour man Sénégal dee dafa nekk comme ceeb bu ñuy lekk fonk ñu euh, fonk moo tax lu mel ni ku ci nekk war ngaa war na laa jaral que bul bul demati di rey sa bopp ci kenn bu la kenn jaral taxaw ci terrain bi di dee ndax soo deewee sa yaay mooy ñàkk tey Aziz ku ñàkk tey seen famille ñoo ñàkk ñi nga xam ne tey lu mu dawoon ci àdduna lu mu am indi ko seen waa kër tey ñoo ñoo ñàkk waaye ñàkkuñu parce que am nañ ko mel ni Californie ki toog tey di woo sénégalais nañ leen ñëw leen ngeen soutenir famille bi ñëw leen ngeen wan ne yaayu Aziz ay doomu téeméeri doom ñoo ngi ci Sénégal di ko dimbali kon lii ngay def nii yàlla na nekk lu nekk continuité comme ni ko sër bi waxee bu kenn xeeb 1000 francs bu kenn xeeb 2000 ku toog ba sa xel si yaakaar ne war nga koo dimbali rek def ko takkali du la ko wax maa ngi leen di baalu ak si wax ji bare ngeen baal ma yéen ñëpp kontaan yàlla fay leen ñu ngi lay sant ñu ngi africain ubbil sa micro salaamaaleykum. Kari waaleykum salaam wa ci jàmm. ñu que numéro yi nga joxe bu ayda bi man dama yónnee mais ki ma yónnee Malick Diallo la la tudd. est-ce que moom la ko la moom da ngaa da jaawale sister. jaawale ma de moom moo ko envoyé ci affaire bi. non xaaral xaaral ñu waxtaan dañu bëgg luy leer dama ni. xoolal ban numéro nga envoyé nga waxaat ñu ko fii xool ko. xol ko ñun ñep mënu ñu envoyer mu dem direct ci Aïda nga nek nga jot malik la bu leen di jaxase s'il vous plaît parce que Aïda en personne mën na dugg wax numéro ñaata la yow yaa juum bi ngay envoyer xoolaatal bu baax bëgguñu daray erreur waaw ñun am nañu numéro Aïda ban numéro nga envoyer yow yaa juum yow yaa juum non numéro bi du 76 kii bi du 76 du 76 c'est le 78. yow yaa jël 78 laa wax 78 numéro bi xaaral ma wax la da ngay déglu ma wax la numéro bi. waaw. 78 la. 496. 99 67. yow xoolal si chiffre yooyu peut-être nga jum si benn chiffre. 496 mais attends man dama ne. waaw. du pour man de non non du pour man de yónnee naa pare amul problème. non yow maanaam daa am euh, ko yónnee lu ko bind mun nekk xam nga nit yi dañoo xaw a fou. non sister dama bëgg. à chaque fois nit yi def paaral s'il te mhm. ni dangaa yónnee benn mhm. numéro mais ki nga yónnee Malick la tudd. ma ne tamit. bu ma baxee di nga wax parce que da nga fi andi réero da ni da nga yónnee benn numéro mais numéro bi nga yónnee Malick moo jot xaw ma lan ñu ne la ñu ki ñuy yónnee kii Aïda Ba la tudd te numéro Aïda Ba c'est le soixante dix huit quatre cent quatre vingt seize quatre vingt dix neuf soixante sept yow bu dee numéro yi nga yónnee yónnee woo ko tudd Malick Aïda Ba nga yónnee yow xoolal nga sa téléphone nee ñu Kaliphone man de yónnee naa un euro ko yónnee si numéro bi ak bii wax ñu numéro bi nga yónnee bi ñu xam. bu ko yow mën nga mën nga woo wii mën nga woo wii récupéré waat ko bu la neexee. pourtant comme xaanoo sax li may wax man c'est pas grave jël ko wax la am naa laay bañ pour ñeneen ñi par man loolu moo tax ma yéeg si laaj bi. for lom for la bind ci ci tiktokam moo rek boobu ñu ngi yónnee si laa jël ma tamit capturé daal di copier collé si sama web envoyé ma gis maa jàll nga yónnee bi mën nga ñu ko commentéral fii africain commentéral ñu numéro bi nga commentaire ko dinañ yow pour mu gën boobu ngay yónnee woowal wéef nga récupéré waat li nga yónnee ñun Aïda la ñu wax nañ ko yónnee muy 78 496 99 67 ku yónnee beneen numéro nag yaa yónnee beneen numéro mais ñun waxuñu fi beneen numéro. oui waaw maa ngi dugg. gisuma ko. gisuma sa commande. 3 95 41. boobu man ubbi ma sama gémmiñ ne numéro bii la numéro bi envoyé bi nekkul sax huit kon yow dem sànni xaalis jox keneen mais ñiy envoyé ba ay la jot téeméeri junni ñooñu dañoo déglu yow yaa comprendre li ma wax de billaay yaa ko wax de dama wax. parce que dama ko gis ñu ko commentaire. waaw waaw da ngaa gis mu commentaire. waaw ma jël numéro parce que di la wax numéro bu ne ak ah, kii léegi wool ne allo wéef numéro comme arnaqueur la même bu euro nga bu ko comme day rek bu ko may

boo xoolee sa wéef am na appel gratuit doo fay dërëm. waaw yàlla def damaa wut numéro bi mu fay téléphone am nekk. ci amul fu mu ko mën a récupérer foofu. Mhm. yow woo ko wéef ne bi ma def léegi si numéro bi dama koy récupérer wéef dina la ko delloo sa xaalis comme dajaay triant. numéro bi ñu dugg dinañ leen prévenir yaakaar ñaari erreur boobu yow rek yaa daanu mais ñi nekk fi yëpp si numéro ay bi leen yónnee mais jërëjëf kontaan na xool ñu wéef dégg après nga yeggaat nga yeggaat defaatal demande parce que lool du mat une minute wéef ah, day faral numéro bi c'est c'est wéef waaw d'accord waaw boo dee application web nga appel appel web